mbokk yi lu ñaaw te doy war moo xew fii ci almeer yu njëkk ya fii ci jumaa yi Touba mu di benn soxna bu toll ci téeméeri at ak lu teg moom lañ indi fii ci margo bi niki bi ñu ko fii indee tey jii ci suba la benn sëtam demoon doon ko ziyaare niki bi mu rek kanam gi rek daal di fekk ñu daal di dagg sikkim ba mu daal di génn laaj eh, ki mu àndaloon ni ndax sama maam ji dafa amoon góom ci sikkim bi mu ni ko déedéet mu ni ko sikkim bi dañ koo dagg nekk ñi nekkoon ci almeer yi ni ko demal nga xool baaraam ya ndax lii bu daan am rek moog baaraam yaay ànd nekki mu muri baaraam yi rek fekk daal juróomi baaraam yëpp di nàcc ñu daal di koy dagg nekk mbir mu ñaaw te doy mi ngi xewee fii ci Touba ci almeer njëkk ya jamono ji nag ñi ngi fii di leen daataanal eh, kàddu yi lu fi ruuse rek incha allahu rabbi ñu daal di leen koy àgge jamono ji ñuy wax yéen ñu ngi fii ci yi njëkk ki fi ci juma yi Touba mu nek mbir mu ñaaw lol te doy war ndax lan teewluy kàddu yi sëtam ki xam si ni mo daal di miri kanam nga ba gis mbir mu ñaaw mi ñu and baaxee len kaddu yi mbokk yi mbir mi len doon diktel euh, niki sank ñi ngi ni de ko ki xam si ni modi di soxna si euh, soxna si def mbir mu ñaaw mi sëtam nak mi ngi ni taxaw mu bëkk ñu mu baax ñu ci ay kaddu rek ci mbir mi ana nak la démé ak xew-xew bu doy war bi señ ñi ngi ziar sax bi ñoo la delloo siyaar dila la lu baax baax mbir mi de moom day mbir mu yéeme wax dëgg yàlla yàlla dafa dogal dafa faatu bi ci guddi ñu andi ko fi fanaanal ko fi bi muy ñëwee dara jotu ko xusikul fenn bi nu xëyee maa ko jàpp ci turwaal bi ñu génne ko bi ma ko génnee ñu teg ko fi ñu koy sange biñ ko fi tegee ci muri kanam nga gis ñu sikkim bi cuqati ko bi mu ma dem laa ci euh, sama ndijaay ne ko waa maam dafa ab ma amu ma daal woo sama yaay gi xam ne moo ko doog doggali mu ne gisuma fenn fu xam ne am na fa góom léegi euh, bi ma bi ma ñëwaatee ñi doon sang bi ba leen ko wanee mm-hmm. ni leen fii xam naa dafee gaañu